Sall la ma àndal Serigne Sall moo jara àndal université ñun ki nu àndal ñun ki nu àndal université ñun ki nu àndal yee ñun yaa jara àndal a sëriña saal lanu àndal yaa am ndigal yaa jara àndal yaa am ndigal yaa jara àndal mucc nanoo ñun ñi nga àndal mucc ñun ñi nga àndal Serigne Sall lanu àndal Serigne Sall ndigal moo jara àndal jërëjëf taalibe yi maa ngi leen di nuyu leen ah, waaw bi ma maa ngi sant bu baax maa sant bu baax ca moom day sant nañu sëriñ Saliou bu Mbacke bu baax a baax Saliou Mbacke bu baax moom daal na ngeen xam ni sant naa cant goo xam waaw naa bu baax a baax a baax a baax a baax mbiri Serigne ah, waaw moom day lii rek war a am ñun war na noo kañ sëriñ bi war nañ koo feccal war nañ koy waxtaane war nañ koy yuuxu fu nu toll lii rek lii rek a war a am woy sëriñ Saaliw rek a nu war te wooy sëriñ Saaliw mooy war sëriñ Béthio te loolu rek ko neex man de wóor na mani tey